En gaayil islam en gaayil islam na ngeen xam ni ndam laa ngi kanam war ko dawal waxtaan boobu ci Jobaas Info TV euh, te ñu ñëw seet ci sunu oustaz ngir ñu waxt mu waxtaanal ñu ci alquran ak sunna euh, loolu moo ñu moo ñu fi indi tey kon oustaz sunu waxtaan moo ngi jëm ci alquran ak sunna ñu xam ko xam li muy représenté ci société bi ak kenn ku mu doon ci ñun loolu daal moo ñu moo ñu tax a yëkkati ñuy gërëm sunu sëñ Ousmane mi ñu àndal ci teewlu bi kon oustaz sunu waxtaan ñoo ngi koy dooree ci alxuraan ak sunna dañ laa dañoo bëggoon a xam ki nga xamante ni dafa réere alxuraan ak sunna nan nga koy expliquer ne lii mooy alxuraan ak sunna sunu première question mooy lool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 ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مبك جولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قلنا بنسنت يا لغرمكو جولي صلى الله عليه واله وسلم نيغي دي نيو نيو الاسلام تموي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته jiital ci nuyoo gi sunu kilifa sunu wayjur mi toog da Cheikh Mouhamed Taha di ñaan yàlla ko ki wér yàggal ko ci kanam bu njaboot gi nangul ko liggéeyam nuyu ki ko féete càmmoñ di sunu wëllëre Abou Bakar Ndiaye wala bu Ndiaye nuyu la yow ki Issa Diop ak uh, Ousmane Tine mi nga àndal ci liggéey bu am solo bi Ousmane Ngom di ñaan yàlla yàlla gën leen taxaw gën a barkeel seen liggéey dafa leen kaw seen njort bu ñëwee ci laaj bi nga laaj lan mooy alquran ak sunna laaj bi kat ku di ab julli war na koo xam ndax quran kat buñ ko waxee ci tënk bu gën a gàtt mooy waxe suñu boroom yàlla mi nu moom ñu quranu karim waxam la yàlla na bu wàccee wax ki toll ni yàlla ci màggaay bu wàccee wax am na jubluwaay yu mu ci nammu julluwaay ji mu ci namm nag mooy nit ki xam kan mooy boroomam te mënoo koo xame fenn fudul ci quraanu karim nit ki xamit lan moo tax yàlla bind nu indi nu fii ci kaw suuf loole kenn mënu koo xam du benn doxalin du benn civilisation du benn téere booy dellu mu jàngal la ko te delluwoo ci yàlla mi nu bind indi ñu fi ba noppi ginnaaw bu ñu xamee yàlla moo ñu bind indi ñu fii ngir nañ ko jaamu fii ñu nekk di àddina mooy fan ban kër la lan la làmboo ci ay mbir yoo xam ne boo ci góorgóorloo nga am texe fii ci kaw suuf boo fi jógee tàbbi aljanna yàlla ko yàlla ki defal ak ay mbir yoo xam nit ki war na ko moytu bala moo faatu ndax daf koy yàqal fii yàqal ko fa mu jëm loolee kenn mënu koo xame fenn xam bu wër te ñëw ci te ñëw ci alquraanu karim kon quraan moomee di waxe suñu boroom dafa làmmoo ay santaane dafa làmmoo ay tere dafa làmmoo ay dige dafa làmmoo ay nattu dafa làmmoo ay nettali ak ay atte li ñu war ci santaane mo jëfe ko li ñu war ci tere yi mooy bàyyi ñu yëg ne jëfe santaane sunu jàmm suñu texe ci la nekk bàyyi tere yi tere yooyee mënu kii tere sunu alkali sunu musim moo ci nekk gëm dige yu neex yi moo yàlla digg na yàlla dël na ñu ko gëm di ko jaamu teraanga fii ci kaw suuf jàmm ci biir bàmmeel buñ dekkee tàbbi aljanna jaala allah minhum nga gëm ko ni ko yàlla diggee nga xam ne yàlla du waxan ko innahu kaana waaduhu matiya ci yooye yàlla ki tere ñu yëg ne sunu ngaañ moo ci nekk moo tax ki lànk bañ a bàyyi bañ a jëfe ndigal yi tàbbi ci tere yi baatu tëkku bi ngay dégg di alwaid moom lay xaar kon yi yëpp nag mënoo xam mënoo koo xam-xam bu wér te amoo beneen masdar bi lay dimbali te mooy as sunna yàlla moo yaxal ci alquran karim wa anzalna ilayka dhikra لتبين للناس ما نزل إليهم من يلا ما وات القرآن الكريم جخلق يوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نتني لن وات جخلينك فوفنا لسنة دي أميكي بلاس بني جوخي بني مثال بغنى كي بغنى تنيب من كو جيس موي بودون تشامب القرآن الكريم جامو يالا بغنى فس مجولي di naa gëm yàlla wéetu jaamu yàlla bi gën a fës nga xam ne moom am ki ñàkk ak ki am ki wér ki feebar buur baadoole ñëpp ci maase yem du wàcc kenn bu di azaka mën na wàcc ndax amoo ko koor mën na wàcc ndax da feebar aji màkk mën na wàcc waaye julli moom du wàcc kenn du wàcc buur du wàcc baadoole du wàcc jigéen du wàcc góor du wàcc kenn julli moomee ñaata tisbaa ñaata raka ak ñeenti raka boo yemoon ci Qur'an kenn doo ko fekk nii nga war a sëggee nii nga war a siggee nii nga war a soloo ndox bi nga war a jël pour jàpp yii boo yéen Qur'aan karim kese doo xam boo téyee say wóom lii nga war a wax Qur'aan karim kese manu kii manaan new fa kon sunna fii la amee ci place kon daal suma ma su ma tontu li mooy Qur'aan daal ak sunna ñaari jëmm la ci waxin waaye kenn mën leen teqale kon ñaari béjjën la yu sax ci benn bopp lii di waxi sunu boroom yàlla ko rab boo jox ko sang bi sunna nag moo jël maanaa bi daal di ko xamal sang bi sang bi nag mu bàyyi ko daal di ko daal di rabb nag maanaa boobee ci waxi boppam waaye nag moo quraan ñoo bokk ci war ko gëm war cee ngoy bëxee jóge fi moo tax bi sang bi ci bi mu fi jóge ne woon taraktu fiikum amrayni lan tadillu baadi ma in tamassaktum bihita bihima kitaabullahi wa sunnati ci tënk bàyyi naa sama ginnaaw ñaari mbir du ngeen mos a sonn du ngeen mos a texee di dafay dafay yéen a ngi des mooy ci alquranu karim ak sunna kon daal ci tënk lii mooy tontu laaj bi kon daal quran ak ak sunna mooy ñaari balluwaay yoo xam ne léppi lislaam fa lay jóge mu doon lu wér leneen lu waay man ta wax ñu teg ko ci balance quranu karim ba si balance sunna mu juujoo la fa nekk ak ku ko mën ta wax teg ko ci suuf nga xam ne li wérut oustaz euh, ngi lay jaajëfal ci réponse bi ñu jox euh, kon su fekkee li nga expliqué moom mooy alquran ak sunna kon moom ban importance la am ci société bi maanaam société ban ban importance la ci alquran ak sunna am ci société bu mun a doon nag société maanaam importance quranu karim ci ab société mooy li tax Qur'an karim ki jóg Qur'an li ko tax a jóg mooy lan li ko tax a jóg wax naa sànq wala wala léegi waxi suñu boroom la kon yàlla li munu sant lennam newu ci mooy teraangam newu ci ndax léppi teraanga ci moom lay bawoo sécurité moom newu ci déedéet lennam newu ci waaye ñun ñimu mu bind ba noppi nag mu wàccee téye ba jox ñu ko sunu jàmm moo ci nekk yaa ayuha nnaas waqad jaakum min allahi nuurun wa kitaab dafa ne yahdi bihi llahu man ittabaca ridwanahu subula salaam kon yàlla wàccee na téere wàccee na leer jox leen ko ku ko topp yàlla teg la ci yoonu njub nga am jàmm fii ci kaw suuf am dund gu ànd ak jàmm jàmm ndax wassalaamu ala man ittabaal huda mooy quraanu karim buñ ko toppee jàmm la ñu am fii ci kaw suuf fu dund gi manta yem bu ñu nërmeeroo ci bàmmeel ak tiraay bàmmeel ni moo yàggee ñu am fa jàmm bu ëllëgee bu ñu fëlee taxaw ci kanam suñu borom allah xel ni bés bi ragloo yàllaa ngi yaxal te ci ci yan ci laa yaxzunuhumul fazaul akbar ak laa yasmauna xasiisa am na ñoo xam ne allah xel lu mu ñàng-ñàng ñoom te jaaxale allah xel ñoom dañ cee mucc jaalna allah minhum kon daal ci tënk quraanu karim jeexe ji def ci ab société man nañ ko lim ci ay point yu bari bu ci njëkk mooy dafay def njub ak maanute ci biir nit ñi ku nekk yëg ne yàlla moo la bind yàlla moo la moom loo fi def gis na la jël na ko te bu ëllëgee dalay lay koy fay ya julli ne bu xamee lii nag fu mu nekk di am yëg-yëgu yàlla mi ngi ne jàkk ci moom te mooy ashuuru bi rahmatullahi taala ñaareel mooy ñun ci sunu biir ku nekk da ngay maanu ci sa morom ci misal rek kenn du teub dem di faat bakkan bo xoolee rey ni mu ki mel bu won dellu woon ci karim di waxe suñu borom ci njàngale suñu yonent di ki sunnam du melni tax lolu moy qur'an teel ñoo yegal ni kat ku ku ray ben bakkan te nga tey ko dafa melni ki ñepp nga faat ku ray ben bakkan man ahyaha fa ka annama an nasa, jamian boo ko sauvé dafa mel ni ki ñëpp nga sauvé waaye ku rey benn bakkan te nga tey ko dafa bakkaar dafa mel ni ki ñëpp nga boole ki rey bakkaar noonu lay toll ci riyaa ci màggaay kon ànd ak lii téere bi ñu ngi ko mokkal di ko jàng di ko jàngale ba tey rey gi at bu jot day gën takkarnaas kon la mu tekki mooy yariinu lislaam bi dunduñu ko bu benn ñaaree mooy attey lislaam bi mooy ginnaaw mi islaam yaree ba yaree ba noppi nag nangu ak bañ moo fi nekk aay bi ma jàng lii quraan la nga demaat ci sunna sang bi nee faat benn bakkan jëli fi aduna ak li ci biiram jëli fi benn bakkan boo xam ne yàlla joxe wu nañ koo rey mu ne tukkal aduna moo gën a woyof fa yàlla xool aduna li fi nekk lépp nga rajaxe ko toj ko yàq ko mu ne li mu rëy rëy fa yàlla jëli fi benn bakkan moo gën a rëy loola kon di lépp kon wane kon yàlla bindu bakkan ngir nañ koo faat moo tax mu ne man qatala nafsan mutaammidan fa jazaauhu jahannam baay ba jeex kon bi yàlla waxee li lépp ngir yar ñu rek ak won ñu danger bi ne ci faat bakkan ba noppi yemu ci waaye daf indi am ko benn sanction te mooy ku rey bakkan te nga tey ko ci tënk nañ la rey kon lii buñ ko defoon la njëkk am ci laay yii nii mooy mooy bakkan yëpp ñooy ñoŋ kenn du rey bakkan mu yombe noonu ak koo doon boo ko reyee te nga tey ko wala nit bu reyee bakkan te tey ko ñu jël sanction islam teg ko ci kawam loolu lu mu jur mooy ismatu dima mooy dara yëpp a ñoŋ ñaareelu mooy ci wàllu li indi ay xeetu feebar njaaloo bokkuñ ci ay jeexitam ci ay musiba njaaloo di yem ci borom kese waaye day indi bekkoor day indi deegu bari day indi euh, day day indi ñàkk day indi ay xeetu musiba yu dul jeex day wàññi barke ci kaw suuf kon ndekete bakkaatu mbaa njaaloo yématul ci borom kese waaye dafay loraale fa mu nekk ak lafa nekk di am jeexe ca loola lislaam indi nag at bi gën a rafet ci njaaloo waññu bu leen ko jege musiba la ku ci jaar jaar nga ci yoon wu bon ba noppi mu indi nag ay sanction ku dem na ba tàbbi ci nag bu charte yëpp yemmee tiime ya ci penc naka mbooloo fekk muy góor mu jigéen mu fekkee amoo jëkkër bu fekkee amul soxna bu fekkee nag dafa am soxna mbaa dafa am borom kër moo xam te moo xam te surtout mu def ko muy nañ ko rey lii ngi lan la ngir rek bëgg feebar bi virus bu bon bi nga xam ne moo gën a bon corona bi ñu coow njaalo moo gën a moo gën a moo gën a bon fuuf te ko waxal yàlla réew mi fi ñu nekk am na ay jigéen yoo xam ne am nañu carte yoon may leen ma doon seen mecc bu du mécc kenn waxu ci depuis kañ bi amé indépendance batay mi ngi fi jeexit yoyé musiba la ci ab société bu fekkoon ka def ci mom dong dong dong lay lay yem su yone wu ci way bakkat ñaar la bakkar bo xamné boko défé mom defee mi ko def mom dong mo ci loru ak bo xamné boko défé da nga ci loru loraale ñeneen qur'an ne wattaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa moy moot leen fitna ndax du yem ñu def hadith ñewat mun man raa minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadi ku gis ci leen lu bon te nga am dooley pouvoir exécuter mën koo dindi dindi ko mënoo koo dindi waaye mën nga wax ba dañ waxal mu dañ amoo pouvoir dindi amoo pouvoir ci wax na ko ko naqarlu ndax loolu mooy lu bon loolee du yem ci borom fekkoon ci borom lay yem yoonu kenn newu ci ci tënk daal Qur'an la ci maanaam buñ ko dundoon daal nii ñu mel ci ay jikko yu yàqu ci ay pas-pas yu yàqu ci ay ñaaw njort yu yàqu ci ay mbañante ay yàqante ki buñ ko dundoo ñaari balluwaay nga xam ne moo suñu lépp diine lii dal ñu ci ay xeetu feebar duñu ci dal fekkee sun société bi jëriñu alxuraan li nga ci expliqué leer na nañ loolu na kon balaa nit ki di génn ci këram famille bi ak moom ci jëmu boppam am na lu mu war a comporté woo ak alxuraan balaa moo dem ci société bi kon alxuraan boobu noonu nan la war a nan la ko nit ki war a dundee individuellement avant muy dem ci société bi lu mu war a jàng la lu mu war a xam la loo xamante ni waru koo bàyyi ci dundam benn yoon su ko su loolu amee ci la ñuy soog a am société bi nga wax nii wala. waaw xam nga Qur'an moom wala lislaam ak jàng ñoo mos a ñoo mos di ànd moo tax boo càmmale Qur'an yàlla mu njëkk a wàccee doo julli leen doo wéetal leen ma doo lenn la ma njëkk a wàccee mooy iqra yemu ci mais dafa joxe programme loo jàng bismi rabbik looy la lan la mooy alquran bu ci xeet yi mooy alquran ak sunna kese moo la ko mën a jàngal léegi nag est ce que nag boo génni quran sa lépp da koo dund da nga dund ci kër gi ci mbedd mi ca palais ba ca gouvernance ba ci ministère ya ci mairie ya ci kër ga foo mënta nekk da nga koo dund mooy système de vie amul lenn fooy toll nga ne Qur'an moom lii moom waxu ci lenn damaa bàyyi sama liberté bopp amut immaa nga réere ko wala nga bañ ko xam kon téere la bu nu war a jàng borom baa nga yàqal Qur'anu karim mu ne fas samsik billadi uuxiya ilayka innaka ala siraatin mustaqim wa innahu la dikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusaluun ba mu jël wax ji daal di ko ki mu tànn yónni ko ne ko fastamsik yéen jàng arab xam ngeen baatu istamsik fi'lu amrin la mi nga jóge ci fi'lu euh, fi'lu fi'lu sudaasi te mooy istamsaka boo ko bindoon wàññi araf yi juróom araf la te mooy fi'lu sudaasi mooy araf bu gën a gudd ci làkku arab li tax ki waxu xud billadi uxiya ilayka da wax waxu loolu pourtant xud mooy téyel rek istamsik moy ngoyal ba tey mooy tëyeel waw taxit yàlla bayit baat bi tan baat bale te fële mun yont yàlla gi bali khudma ataytuka fi mun mu ne fastamsik mooy a ziyaadatu mabna ziyaadatun fil ma'na maana ñaari baat bu ñu bokkee benn maana bu da fay tey teyel ci waxin mais bo bindé ñaari bat yi nga wàññi araf yi bi ëppale ay araf mo gën xóot moy baat fastamsik ci teunk moy na nga ngoy bu dara tax ba nga bàyyi alquran di ko weccoog leneen mu doon menace mu doon situation mu doon lenn amul lenn loo bàyyi ngir loo maanaam ngi weccoog leneen loolee bu lu ki jig quran kenn du ko bàyyi téye leneen loolee jig la ndax boo ko bàyyee la ngay téye bàyyi nga la gën nga téye ci loo xam ne mi ngi ci suufas quranu karim moo tax mu ko na nga ngoy ci téere yi ma wàccee jox la fi sax dafa ne billadi waaye sunna mi ngi ci biir داك ولقد ولقد اوتيت القران ومثله معه كون من بالذي اوحي في دمن القران من كبير سنه من كبير نغا تي نوي من وانه لذكر لك اي لشرف لك داخ موي ستيرانغا تا نيب كو بغ نيب بغ ترانغا من وانه لذكر من ليك ستيرانغا لا اسكي موم دونغ من ولي قومك اي يا محمد اكثر خير kon ñoome la ma sant mooy nañu ngoy ci alquranu karim ndax moo seen teraanga waaw bu ëllëgee nag mu ne wala sawfa tusaluun bu ëllëgee dees na leen audité kon dama ne quraan karim da koy dund ci biir kër gi sa diggante ak sa ki soxna yow mi boroom kër sa diggante ak sa borom kër yow mi soxna sa diggante ak sa njaboot say diggante ak say dëkkandoor say diggante ak say wëllëre say diggante xataa ñoo bokkul diine am li ñu jàngal da nga war a moom kon amul len lu mu bàyyi amul ben ruq amul benn marxala benn tolluwaay boy tollu ñu ne fii qur'an quraan waxut sunna waxut lu ma neex def mba walna sos wal naa kon dañ koy dundu ñun nak lañu dal nak moy la yàlla doon xasse aw xet dem di di di lenn ci ay yahut afatu minuna bi baadi alkitaabi wa takfuruna bi ba'd mun ne fama jazaau man yafalu dhalika minkum illa khizyun mooy ndax da ngeen dëggam ci téere yàlla bi da ci des nga weddi ko Quraan jugul ngir loolu man daal la ma gëm daal mooy julli waaye koor moom wooruma daw ma màkk asa waaye julli maa ngi julli amu njëriñ da nga jël léppam nga dund ko wala nga bàyyi lépp mais lii dinaa ko dund waaye dama koy bàyyi te amoo benn ngantal lislaam ndaxoo kenn yàqloo kenn sa bopp nga yàqal moo tax mu ndax da ngeen di gëm lenn ci téere bi am lu ci weddi mu ne lii ku ko def lu ci jëlee la mooy toroxtaange kon téere bu ñu war di dunnaat bu ñu war di nafaraat bu baax a baax moo tax mu ne walladina yumassikuuna bilkitaabi wa aqaamu salaata fa inna laa nudiicu ajra almuslihin mboolem ñu ngoy yumassikuuna mboolem ñu ngoy ci alquranu karim ñu ngoy si ci pas-pas pas-pas bi ñuy fas mooy pas-pas bi di quranu karim ki jàngal ci wàllu jikko يجكو وجكو القرآن الكريم كوالو عبادات ما سوين خير جام يلا يب نجلو تيكو أنك أتكي سنة مني بني نكني كات مني مبالم يي نوي تيري بتشني كات من يلا بنوب نجوت خوال جل كسنا وأقام الصلاة مني من يلا دوما نينال جفو ني يوينال ني دفلو باخ كونك لو باخ منو كو دف تنغيو شال القرآن الكريم ñu ngi lay jaajëfal bu baax réponse yi leer na léegi dañu buggoon a xam mooy ki nga xamante ne nii wala ñi nga xamante nii dañuy dund alquran ak sunna seen société nan lay mel ñu boole ñaari question yi rek mooy ñi koy dund seen société ni muy mel ak ñi nga xamante ni dunduwuñu ko seen société ni muy mel ngir ñu gën a mën a ko loolu jàpp naa ne ñëw na ci sama biir wax waaye mën na ci jaaraat ñi ko dund xam nga doomu aadama ni ni ko yàlla bindee mënta dund ci anarchie ci fawda mooy nit ki buñ ko bàyyee da tënk ko rek fawda di am pucc xoo am kon foog ko am liko ko li ko tënk moo tax réew moo dem am na am na ay ay ay constitution am na ay tëralin am na ay doxalin yoo xam ne ay luwaa yoo xam ne moo tënk réew mi ñu xam ne réew mi ci lii la war a ki dox lu tax ñoom ñu kii tër loola moo dañoo bëgg mbir mi tege ci yoon ñu am jàmm seen alal mën a ñoŋ seen kii mën a ñoŋ waaye loole ñuy ñuy ñuy def est loole loolee ñuy kii ñuy sos est-ce que mën na faj seen bëgg-bëgg cent pour cent tontu ne mooy déedéet ndax boo jàng al manahij al mawjuda ala wajhi al mboole mboolem xeetu méthode ak ay at yuy tënk état yi tënk réew yu démb ba tey ba ëllëg boo ko tënki gënu ñett wata njëkk mooy manhajun yun waaye mu xarraf méthode boo xam ko cosaan ka diine la war waaye dañ ko falsifié ko nektul diine beneen bi mooy manhajun diiniyun waaye bashariyun méthode boo xam ne boo xam ne diine la ngëm-ngëm ma diine la waaye nag du diimu yàlla wàcc nit moo ko fentel boppam du ko ci arrangé mu def ko lu ko ci kii woo bu génne ko teg ko ngëm-ngëm diine ji mu jaam boromam moom it man dafay dara ñetteel bi mooy manhajun madaniyun bashariyun xaalis doxalin boo xam ne nit moo ko fenteel boppam tegu ci diin ci dara waaye ci ay loi ay article moo ko tënk am ci benn jubluwaay ñetti yii foo dem ci réew yi moo fa nekk bi mujj nag tey mooy bi gën a fës mooy bi gën a yaatu mooy boo xam ne du diine du lenn waaye réew ma ñoo toog xam ne lii kañ koo soxla article nangam mooy lii ak lii lay wax mu tënk lii yooyu nag boo fa demee la waxoon sànq fa la jaaree moy manhaj bobu fa ngay fekk nak fi ci réewu Sénégal fii ñu dëkk jox fi misal fi ngay fekk nak jigéen nak am sañ-sañu jël ndialo mu doon métiem ba nopi li état may ko ko yoon may ko waye ban yoon la pourtant julli moo def pourtant julli moko jébal kayit bi mu am ko jappé comme carte d'identité waaye tax li mën tab ci julit mi nga jaare ci al manhaj al madani al khalis al bashari mo indi dorok fi ci réew mi boo jaay dagan wala daganut daganut sàngara ci maa ci réew mi ci état yi maa ci maa ci att yi ne fi dagan wala daganut dagan na jaay sàngara fii nii dandewu ci amul làqatu waaye jaay kii jaay dorog da ngay làqatu tax loolu mooy état d'accord ñu ñuy jaay dorog mbaa di ko jëfandikoo teg na ay article yu sévère ngir loola waaye nag bu dee sàngara nag déedéet sàngara moom dagan na waaw lii nag xam nga lii doomu aadama moo ko tër ndax sàngara lu mu yàq nema xel doroog lu mu yàq nema xel kon noy ne newee bii dagan na be mo moom daganut kon gis nga fay kon nit ki dafa lot ci meuna teure bop meuna ab yoon l'islam a ñëw ne ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram lépp luy yóbbu xel la ci bëri li ci tuuti li ci xop li ci ndox li ci saxar li luy xenc lépp dafa haram ko gis nga ñaari doxali ni bokku lu tax lolu Moy bi ka dafa joge ci ko mat te moy ki bind adam aadama kii ne nit ku matari mom mo bind kon bo xoolee ko dama ne ñetti doxalin yi ñoo am ci kaw suuf l'islam nak ñew nak doona a sharia tuddu a sharia sharia hatta ñi jàng tubaab da nga deg ñu nan sharia lu tax mooy baat bi amuñu ko traduire ci arab ci ki ma ci benn langue tax loolu mooy amuñu baatu sharia sharia sharia baatu sharia baatu arab la avant ñu sharia ci maana islam sharia ci maana luga mooy lan boo ko tënkee ci ñaari maana la ki dellu benn mooy shariatul ma mooy ndox fa muy ballee mooy shariatul ma mooy ndox ñaareel li mooy al tariqul mustaqimatu yoon wu jub xocc ci arab mooy baatu sharia ci waat ci wàllu al lugatan ci wàllu nag sharia ci islam nag mooy nag tëraliin la ab doxaliin la système de vie boo xam ne yàlla moo ko bindee jébbal ko ay jaamam yi ne gëm nañu ko mu làmmoo ay santaane làmmoo ay tere làmmoo ay dige ay tëkku ay nettali ay atte lii dagan na lii xaraam na ma léppi nag jàmm kese na jàmmal ni doomu aadama kese na moo ko tax a jóg kon boo xoolee ñaari maanaa lu ko yële ñëwaana ci maanaa bii mooy est-ce doomu aadama mën naa dund dund gu mucc ayib te ndox doo ko jëfandikoo tontu li moo déedéet kon jàppal ne yow nit mënoo dund ci kaw suufas yàlla sii nga xam ne yàlla bind suuf si te dégluwoo yàlla mi la bind nga am jàmm mënta nekk mënta nekk xataa bu ñu ko gëmloo ndax nañ la yàlla mën laa bind ba noppi yàlla bind la ba noppi nga nga sant yàlla ci ni nga mel amul lenn loo tax nga ne man lii neexuma yep ma sha allah xel di matna ba nopp yàlla tàggatal la mboolem li fi nek yàlla momé nak manoko mano yëlëb loxam génne sa dundu nga léegi soxlaatuma la lenn baye ma dox sa mbop ma ta nek motax mané ne sharia ba ci luxa ba ci ndox ba ñu waan moy mano dund sa ndox mukk ñaareel moy mano dund sa yoon yoon nang ko soxla. subu leen yàlla tel ko tudd subu leen ay yoon yu yaatu boko wedde jël autoroute autoroute bi quoi jëm Dakar rek nga xool bu njëkk avant muy am ak léegi nga xool ni mu wuute mooy yoon da nga koo soxla yéen ñi fu nga jaar ba agsi bu yoon amutoon du nga ñëw kon yoon yooyee nga xam ne yoon wu jub xocc yoon nag day am bu jub ak bu jubari waaye yoon wu jub xocc da ko soxla ni mu gën a jubee nga noppalu nga noppal euh, maanaa ñi ngay fekk ak li nga doxi kon dama ne maanaa ñaari maanaa yi dafa ñëwaat sharia kon société bi koy dund la muy rawee ma la koy teq ak ak dundut mooy day am jàmm na ko saxaaba yi amee woon saxaaba yi ko dundoon cent pour cent jàmm bi ñu amoon fii ñuy waxee kenn amagul jàmm ak sécurité wu toll noonu société boo xam ne bakkan yëpp a ñoŋ seen alal dafa ñoŋ borom yàlla def ci kii ne barke yenn feebar yi doo fa doo ko fa dégg tax loolu mooy dañoo dund sharia ba yenn xeetu mooy yàlla yi indi yenn feebar yu garaaw yi amu fa woon moo tax feebar yooyu amut feebaru sida kañ la xew suñu jamono feebaru corona kañ la xew feebaru AVC yi ngay dégg kañ la pourtant doomu aadama yàgg na fi doomu aadama yàgg na fi waaye feebar yu bon yi mosoo koo dégg lu tax loolu mooy daa amee xeetu mooy yàlla yoo xam ne ñoom ña njëkk mosuñu koo fowe mbaa jege ko ko tax loolu mooy ñoom ci gën ci moom yàlla bind moo leen yar jàngal leen ashrafu xalqillah moo leen yar quran wàcc ñoom ñu ko njëkk dégg seen nopp ñoo ko ñoo njëkk a sol daal la doxal quraanu karim ñoo ko ñoo njëkk a woote jëme ci ci tënk daal ñoo ko njëkk a ci anam ji mu gën a rafete jëmu gëm ki gën mate ba yàlla joxoñ leen joxoñ ñu ne fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq mooy mboolem aay bu yéeme yéeme mu ne fa in amanu boo ko bindee am na waaw mboolem ñi ñëw yi ba àdduna xëy jeex tàkk ku fi mënta ñëw seen ginnaaw te du saxaaba bu ñu amee ngëm gu tol ne seen ngëm gii ngeen gëm bi misli comme seen ngëm gi mu ne am nañ njub waaye fa in tawallaw waaye bu nu wanee ginnaaw yéen ñi li ngeen téye woon ba am lii ngeen am ba mel lii ngeen mel bu ñu wonee loola ginnaaw ak luñ ko mënta weccool fa innama hum fi shiqaaq wedam maa du ñu dañ ci caqalikoo ci bañante ci reyante ah sàccante yàqante ki der lu waaye ëppali sa morom wan ko ko ku waxal yàlla dund gii mooy li mooy li xew fa innamahum fa fi shiqaaq kon daal quran daal buñ ko dundee dund sharia dañuy doon ay nit yiw ay nit yoo xam ne yàlla moo leen di waayoo yàlla moo leen ñu am aljanna ci kaw suuf balaa aljanna péncum àllaaxira bu fekkee ne dunduñu ko nag la ñuy am mooy jikkoy mala yi mala boo mënta jël ci mboolee mala yàlla bind doomu aadama saa yu wonee yàlla ginnaaw dëgli wul yàlla ci pas-pasam dëgli wul yàlla ci la mooy jëf fugli wul yàlla dafay mel ni mala bal mooy gën a mala yàlla moo ne walaqad zaana li jahannam denc naa sawara jahannam mu ne mbooloo mu bari ci ay nit ak ay jinde lu tax loolu mu ne am ay xel way di ko jëfëndiko ci li yàlla bëgg amna ñu ay bëtt di ko jëfëndiko ci li yàlla ki bëgg nopi nonu ci yëpp nonu man bu mu daan wax dafa ñee ñoo melni ki ay mala mu ne balhum balhum adallu moy ibn qayyim al al jawzi ci kitabul ci ighathul lahfaan da koy leral ci alam bu mu gën bu mu gën maa bu gëne ki jege mooy animaux sauvages yi al alxaywaan al waxshiya li mel ni gaynde li mel ni bukki li mel ni segg nga xam ne fàdd lañ ko xamee doomu aadama fekkee ne dafa won quraan karim ginnaaw won sunna ginnaaw yoruñu ko ci jikko yooye moo ne wàcc moom mooy jam nit ki ren nit ki soode ko lakk ko dagg ay cëram defu ko muy dara est-ce que lii amut façon rey boo déggul maanaam boo déggul amut rey boo bu maanaam bu dégg rek du kii duwul lu bees gis nañu fii ci mbuur yàggu dara te dugg ci marché jël pistolet am rey fa ñett nit ba ci ba ci ndakaam am am loolu jëf mala jëf mala la kat waaw mala yooyee ka koy def quran yaru ko sunna yaru ko benn ci wàllu ci wàllu misaalu mel ni mala ci wàllu coxorte ci wàllu néeg ci wàllu mën a ci wàllu rey ak yu mel beneen bi ci wàllu mala mooy jikko jinax jinax jikkoom lan la moo yàq bu wéete say téere fii bu kenn ñëwee mu yàq bu kenn duggee mu ne cel mel newu fi bu dégg dara commencé yàq bu duggee sa sa biir almuwaar sa yére bu yàq am na ñoo xam ne loo leen mënta jox yàq ndax loolu mooy quraan yaru leen sunna yaru leen maa jikko jinax ngoog am koo xam ne jikkoy mbaam xuux خنزير لو يجيكم موي سيخ لو دارا كي ديف نجالو لو لو كي سيخ لو لسبيان ديغي ديين كاو لو سيخ لو ديم نيت ني ديو سا با نيان موك نيت لا اك دومام نيو سيخ يا سبحان الله نيت اك ملا امنا في لولا فيكو جيلي موي نياك يارو ني ديم ملني مام خوخ مي سي سيخ لو دارا نمو غنا خاسوي نمو غنا صوبي موم يڠلوكو jël sàngara ki naan dafa ko mooy dara te xam ne lii mun a xam ne ne baaxut xam ne ne xeeñut te xam ne dara nangu ci mooy ab musiba waaye mën koo bàyyi tax loolu moo dafa yàqu ba mel ni mala ak koo xam ne bu ñu yore mel ni taawus taawus mooy bañ banjool xaw ma banjool yi picc la boo xam ne dafa am genn bu gudd mu làmmoo ay couleur yu bëri dafa rafet nag am na ko xam moom la koy moom mooy ah jàmm jàmm jóob jàmm moom la ko yitte mooy lan mooy solo ak summi am na koo xam ne moom yitte woo bitim solu summeeku lool moo moo gën a yitte ak leneen ak leneen xaj jikkoy mbaam maanaam boo ko topp doo ko jeexal kon daal nit daal pour mu wuuteeg mala foo ko dafay déglu yàlla mi ko bind mu aw fañ ko awloo mu mel ni yàlla bëgg mu ki mel ca pas-pas ca jikko ca jëflante ca daw ca siixlu ca jommule ci fooglu yàlla ragal yàlla mooy tax mu gën ku dul moom moo xam moo xam individu la moo xam société la. jërëjëf yaa oustaz waxtaan bi neex na lool euh, waaye dañuy ñëw alxuraan ak sunna sànq ba ngay ba ngay wax expliqué nga ko moo ñoom ñaar ñooy ànd waaye dañuy gis suñu jamono ji ñu bëri dañuy bëgg naan ñoom alxuraan rek lañuy ñuy topp du ñu topp sunna loolu ban jàngat nga ci nga ci am dafa bëri léegi trop naan man alxuraan laa gëm gëmuma sunna déedéet di di ko dinañ ci ñëw sax si waxtaan bi mais pour ñu commencer alxuraan ak sunna ñoom ñoom ñaar duñu duñu ñooy ànd saa su ne jamil loolu ngay wax lu am la ci réew mi feebal bu bona a bon nag te mooy lippee seen bopp alxuraan yi yoon xam nga xotti aw turu jox ko sa bopp ku ne mën na ko man milliard man man milliardaire la kan moo ko kan moo ko kii lott ba ba làmmiñ moo ko lott wax làmmiñ bu ne mën na ko wax ah man président la ku ne mën na ko wax mais est que tax na est-ce tax na nga doon ko man borom xam-xam la tax na nga doon ko kon ñu ñooy ñi ci alquran est-ce que tax na jëmmi wax ko nga doon ko kon ña ko wax in hiya illa asmaun sammaytumuha kese tur la mën naa bu ñu fente seen bopp dama ne quraan kese bu fekkoon doyoon na jëmmi xaji sunna doo ko dégg kon naa yàlla moone ne wa anzalna ilayka dikra li tubayyina yaa muhammad linnaasi maa nuzzila ilayhim maa wàcce alquran jox la ko yow mi ma ngir lal mu ngir nga leeralal nit ñi li ñu wàccee ci ñoom يموجي مودلنا وخا نيت مولا مني وما اتاكم الرسول فخذوه لمولين عندل جلين وسنه وما نهاكم عنه مولين ترى دونت نيو تي قران واي بوكو ترى من فنته بايلين موي واخ باتي بير من من يطيع الرسول فقد اطاع الله مثال يالا نالي يونت ميغي نالي من كو توب يونت بي توب يالا مالي ban wax mu gën a xóot bi ki ki nit la ki na moy ki bind mbollem li bindef mu ne ku top ki top nga yàlla newul ku top yàlla top nga ki ndax yàlla mën koo topp te topp ko ma top ndaw li yàlla mom la tanal bopam ci xet wi tanut kenen boy noddu tura moy jib tu nit bu jib ci noddu turam dong la boy liqam tuuni bu jib ci liqam turam la bo tak sëy mom la ku dem ci bammel kagne lay di nit moom la kon jëmm jooju ku jàpp ne man ngaa dund alquraanu karim te sunna bokkut daman ngi yaa gën a réer yaa gën a waru koy waru ndax la nga wax xel moo ko njëkk a weddi avant xam-xam di ko weddi quraan mën na dund moom kese te sunna soxlaaloo ko mënta nekk ndax yàlla la ko soob duwul yàlla mënoon na ràbbi quraan noonu waaye defu ko defu noonu bi sang bi demee jëli jëli ji kii ni julli est-ce que Qur'an moo wàccee fata julli moo dem jëli julli julli ba noppi lu wax sallu jullee leen ko yàlla waxee lu wax sallu kama raaytumuuni usalli jullee leen ni ngeen ma gisee ma julli ndax loolu mooy dafa paa dëgg julli ndax lan ndax li tubayyina naas maa unzila ilayhim kon daal te yàlla xam ne xadis ñëw na ci toog na bés mu ne jamono mu ne yàlla jox na ma alquran ak lu mel ni moom te na sunna lu waaye jamono nga ñëwi ne toog ci kaw piliyaanam ne man de lu ma fekk quran karim daganal ko ma daganal lu mu araamal ma araamal leen mën naa wax ba araamalee soxlawu ma ko faalewu ma ko mooy ñooñu kon alquran yi yoon ñu ngi fii ci réew mi ñu ngi fii ci jobaas ñu ngi fii ci jobaas diw la ak diwa nag loolu du xekma waaye ñi ngi fii ci réew ñi ngi fii ci tund li jàpp si ma alquraan yi yoon jàpp ñu ma ñoom dund saa xadis saa sunna loolee njuum te gënu koo rëy xadis yi ma waxoon ki sànq taraktu fiikum shay ay ni shay ay law shay waa shay ay ni lan tadillu baadi bi charti ma in tamassaktum bihima kitaabullahi wa sunnati ak fa alaykum bi sunnati yaa axi ah kon dal quran da manoko dundu ci sunna ñëwut tak sunna mo lay tekkil qur'an karim tak sunna day ñëw tek tek al quran quran day ñëw am ko daal di boyal mbir moy boyal mbir tunku ko quran ñëw le am la mu ñu mo taxsiis ko han le mubham la mu ñu mom tafsir ko bu leeral ko kon dal ñom ñaar dal ñu mëna and ben man ta dem bay sa borom te xataa ñoom ñaar sax boo ci demee sa da da ngay dimbali koo déggiinu salafu saalix mooy na ko saxaaba yi déggee woon da ngay yóbbaal déggin waaye mënoo ñëw ci ab ay mbaa ci xadis nga fekk saxaaba yëpp ñoom kat ñii lañ ko déggee woon nga jël yooyu si yow sa dégginu bopp nga teg ko saw kaw see déggi ñoom si ñaar déggini wuute loolee ku def noonu sànku ku def noonu sànku ndax yàlla moo leen tànnal bo kii eh, boppam def ku def ay saxaaba yu do nit ñu ñaw xel ñu xóot ay dégg-dégg kon mënoo am yow dégg-dégg bi gën wér bi faral kaw ñoom seen dégg-dégg boo defee rek ba wàcc na yoon. jërëjëf leer na waaye ñoo waxtaan sunna te waxuñu xadis te suñu waxee xadis suñu xel day dem ci muslim ak buxaari ñooñu boo leen déggee lan mooy ñëw ci sa xel exact muslim ak buxaari ak sunna. li ñëw sama xel bari na maanaam sunna sunna maanaam xadis xadis moom moo ëmm sunna xadis mooy moo jàng sunna jàngu xadis moo jàng sunna te jàngu xadis mooy yenn mbir yi boo koy jàng yaa ngi koy jàngee ci biir alquranu karim kon sunna moom it ci biir xadis yi nga jàngee sunna sunna moy lan moy moy ni sang bi doon dunne diine ji li wax la li da ko jëf waxul waa ji dafa jëf ñëpp gis sunna la ak lo xamne da ko wax ñu dégg sunna la ak lo xamne jëfut waxut waye keneen mo jëf mu yëg ko mu saxal ko ba tay sunna la ak lan ak jikkoom compromis yëpp tabbi ci sunna dégg de yi boko tënke yi moy sunna nga jël encore hadith balé moy sunna al khulafa al arbaa di mo sunna ci deggine bu gëna xóor bu gëna yaatu imma nak ñaar ñi ngi tuddu muhammad kii albuxaari ak muslim ñoom ñaar bu bu dee muhammad ak ki buxaari mooy ki njëkk bind ab téere ci xadis tënku ci ay xadis yu wér kese ndax mom kat dafa juddu fekk waajuram bu góor fatuna mu judd mu judd walé silmaha moy gisut te waajuram bu jigéen mom lamu nidiron moy ki ke bu juddo kat sa yu waré dal njàng soxla ci moom lenn moy jël ko rek sédd ko xam-xam lu mu laaj ma def ko ci mu bok ci taxaw islam ci xam-xam waye ba mu nidir loola mu jàppoon ak lamu yaakar moy mooy góor lay doon afan jigéen ki góor lay doon xale bi judd nag doon jigéen astafurlah xale bi judd kii doon góor waaye dafa judduwaale ngant te moo silma xam ngeen ne ku ne njàng bët da ci am wàlla fii nag mbir mi metti ko mu tuddee ko Muhammad ar rasul sallam moo Ibou Xaali Touré ñu ngi ko dippee ashrafu xalqillah loolu metti ko metti ko ba day toog sax di xaw waxtu am bés na mu gént moom yaayu yaayu euh, Buxaari mu gis sang bi ci gént mu ne ko man de yàlla may na ma doom bu góor papam gaañu na bala moo judd mu ñëw na man ma tànnoo ki tur dippee la ko la ma yéene woon nag mooy lu mu laaj ci wàllu njàng lu ma am dinaa ko jaay def ko ci ba yàlla may ko xam-xamu taxaw diine yi mu ne waaye nag euh, ku ne njàng ci gént bi sangam ne ko boo yeewoo di nga fekk yàlla delloo si ne ay gis-gisam mu yeew rek xool xale mu ne ko nii xale bi commencé di xef mu xam ne gis na ko bu xaay nii la ay gis-gisam dellu si waat bi mu amee dix ans avant dix ans moom duggal ko mi nga jàng waaye ay dix ans wala ko yées tuuti mu gis moom gént moom mu gént moom mu gis mu gis kii sang bi mu gis kii sang bi ay weñ yuy naaw bëgg a taa ci xalka mu ñëw muy dàq mu dàq weñ yi mu daal yeewu mu nettali ko yaay ji yaay ji ànd ak ci ay borom xam-xam ne ko foofu jamono mu nettali gént gi ñu ne maa ñi xawoon a sóor ñu ne bërët toog ne ko yaa gént lii ñu ne mu ne maa gént lii ne ko ah yaay ah, ñu am ah, mbaa jàmbul ke waaye gént gi daal de mu tekk lil ma ko mu fekkee la mu gént lii dëgg la yokkut wàññiwut mooy sunnay sunu yonante ay xadisam am na liggéey bu rëy boo xam ne yàlla bi nga koy jaarale ca loxo moom bi ko yaa ji déggee amatul jàmm moom xale bi amatul jàmm dox na ay dama centaine de ay junni kilomètre dox na ko nga sa ko xam-xam dox na guddi dox na noor dox na nawet moom kese dox na mbooloo war na waruwaay doxe na ki tànk dugg ci ay gaal jéggi ndox ngir xam-xam ba yàlla may ko li mu ko may mu ñëw bind téerim bii tuddee ko as saxiix té bo xam lu fa nek lu wér la bi bittifaaqil umma kon bu nu doxé nak batay ay nit taxaw nak ci ay plateau di sofantal bukhari lolu ñom yak ñom la concerné wa laysa yasixu fi l adhaani idha ihtaja xtaaja nahar ila dalil becc amna ñi wa indi indi ay firne indi ay argument jaru ko kay xala argument gëm ne becc amna bo amé soxal dama doxé ko moom Muhammad al Buxaari yi mboolem ñi jàng ba xam amul kenn kuy laam-laame ca xam-xamam ca mbaaxam ca njubam ci léppam ko nit bu taxawee fii senegal xam ne xamewoo xadis kii saxiix xamewoo xadis ki maqbul xamewoo mawquuf xamewoo daif xamewoo xasan li gayri xamewoo ci lenn nga taxaw di ko wax lu la neex eh, wax ci yow la concerné waaye wax ci mën ko mën ko mu ne ko jàmbaar joo xam ne bi mu faatoo xëy na xës du fi xej waaye bi mu kii faatoo bàmmeelam maanaam la xewoon ci ci ci euh, ci faatu ki waay saxaabi boobu Saadu Muaaz la woon ci bàmmeelam mooy parfum bu doon gilli ci bàmmeel moom moo xew ci bàmmeel Buxaari ba am yoo ñëw sax di tibb ci suuf si di yóbbu mel ni ko tibb cuuraa yóbbu dañoo mujjee di kii maanaam tabax bàmmeel def ci ay kii pour bañ ñu ñu suuf si kon ku baax la woon nitu yàlla la woon. ñi fi nekk tey di ko jam loolu ñoom la concerné waaye manta mënta wàññi lenn ci min jalaati min qadrihi la ñu wax ci Buxaari mooy wax encore ci ci ci Muslim ñoom ñaari téye yooyu ñëpp ñoo dëppoon lu fa nekk xadis bu wér la benn téye bu dul ñoom ñaar la fa nekk mën naa wér mën a ñàkk wér. waaw kon Oustaz xam naa dañuy yemale foofu waxtaan bi. Euh, waaye balaa ñoo tëj dañ lay jox kàddu gi nga wax ñu. ñu ñu ñu jeexalee ko ci gàllankoor doomu aadama ba xéewal bii doo ci téye. mooy doon dernière mooy doon dernière question bi moo tax ma ne la dañ lay bàyyi nga lan lan nga yaakaaroon ne des na ci waxtaan bi loo xamante ni war nga koo mën a yóbbante mbokk yi. des si waxtaan bi daal mooy li ñu doon waxtaanee. تموي قرآن الكريم دي واخي سنو برام اك سنة دي نجانغلب سنو يونانت خامنا يالا موكو جوخ جوخو كبابا لولي دانيو يغني سنو جام مو سنو ترانغ چلا نك سنو تخي أدن با الله خي چلا نك واي قرآن الكريم تاي كو ديالي نغبغو جانغل قرآن الكريم كو تبخ سكر war faa toxu nga dem woo ay ñu wàcce la kaamil ku am sa examen wala ngay wut nga wàccoo kii kaamil Qur'an jógutoon ngir lii déedéet Qur'an dafa jógoon ngir lan ngir ngir xamal ñu kan moo ñu bind kan moo ñu bind te mooy yàlla lan moo tax yàlla bindunu mooy nañ ko jaamu fi ñu nekk mooy fan mooy àddina kër la guy jeex kër la guy ware bu ñu fi jógee fu ñu jëm mooy bu ñu fi jógee dund gi jeexul fii dund gi mo jeex waye faru jeul amna tambal waye amul fu ma yem ñaan jeex na te buñ fa agge imma imma taxé rek imma taxé di te lepp ñu ko jëli fi ba ñoo dem kon dama ñaari way yi ku japp ne mbolo sanga moko mom man bokuma ci yëgal nax sa bop quran karim ku di ab julli dang ko mom te lepp lo man ta soxla mi ngi ci bir waye na amna na ay ay ay gàllankoor yoo xam kenn ku mucc ñu wala ci mëna gor gorlu wa illaa doo ko mën a jëriñoo gàllankoor yooyee ñu tënk juróom bi ci jiitu mooy réer mooy awaayiqu tamassuki bil qur'aani wa sunna am na ay awaayiq ay gàllankoor yoo xam ne boo defut ndànk xataa boo ko xamee man doo am chance téye ci bi ci njëkk nag ci gàllankoor yi mooy réer réer nag ñaari façon la réer texte yi ndax jàngoo ko kooku réer la beneen réer na mooy ko xam ne jàng na am na bac am na lien am na am na waaye ba tey booy booy boo doon bind ñi réer turam mu nga ci biir kookee nu mu réere mooy aljahlu bi manzilatil kitaabi wa sunna mooy réeréew place quran ak sunna fokk ñu xam ne ñoom ñaar dañu am place boo xam ne benn wax amu ko quran yàlla daf ko tànnale weer wu gën ci weer yi yonent bu gën ci werante yi guddi bu gën ci guddi yi barab bu gën barab yi làng bu gën ci làng yi malaax bu gën ci malaaka yi weeru koor la laytu qadri màkk ak madina jibril moo ko wàccee làng arab muhammad di sayyidu waladi bani aadama alayhi salaatu wasalaam kon téere bu mel nii yemut ak benn téere fadlul qur'aani ala saairi alkalaam ka fadlillahi ala saairi xalqi kon dama ñaari balluwaay yi nag mooy gàllankoor bi ci jiitu mooy réere wàccu alquran karim ak sunna mu benn ñaareel bi mooy itibaaul hawa jàng na ba xam waaye topp bànneexu bakkan moo tax mënta jëfe quran mënta jëfe sunna te bu yàlla xam na ne xam na xadis bi xam na ko xam na ne wér na aaya ba mokk na ko xamul li mu tekki waaye ba tey mënu koo jëfe gàllankoor bi ko lan la mooy dafa topp bànneexu bakkan te boole bëri tamit bi ko ñettee ci gàllankoor yi موي تقديم آراء الآباء والشيوخ والأكابر على النصوص الصحيحة الثابتة موي جل وخي سرين وخي مك وخي كليفة جديدة بكو تك تكاو وخي يلا ولا تكاو وخي أبيضانت مومي قال لنكور لا يلا يخلق القرآن الكريم من أمن يوخمن وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا وني أمنا نيو خمنا سين فيبر أغنى بوين أوي نيو لين تي لي يالا واتيه القرآن نيو لين تي سون نس كي متان يونيكو لو مخ نيو كي تنكوجي ني نوا نيون باي مام نيو دون ديف روي نيو كون نيوم جين نيو واخي باي اك نجان نيو باي تكو تي واخي يالا اك واخي يونتم واو لوي نك كو بغا دوندي ني فال لي بروم فال لا جيم قران باتاي باتاي نوبو تي دي borom bi nee na kay dundee noonu tuubul ba ki faatu fa mu jëm moo fa mu jëm mooy sawara te bu fa àggee mooy déglul la muy wax ci biir sawara yawma tuqallabu wujuhuhum fi nnaari yaquluuna yaa laytana atana allaha wa atana rasula wa qaalu rabbana inna atana saadatana wa kubaraana fa adalluna sabila ربنا آتهم ضعفين من عذاب آي آه بجيخ تنك دال يعني بو اللي مولم يدون جيل وخي سيرين وخي مك ديكو تك كو وخي يالا اك وخي غلانتم بتو بكي فار فمو جي موكي سوارا سوف اجي موني سومي اول باتي خارك مام تي بناو جهنم كاد وي لاي وخ مون يالا نيون دي لي يوبي لي نيون كار نيو توبون سونو سانغايا دينغاس اك سونو ماغنيا دينغا ماغنيا سالتنا مو سونو سانغايا انا اك سونو ماغنيا biñ toppee ñoom ñeen ñu ciy toppoon nag ñoom ñooñu sànq ñooñu réeral wañu leen wuuteeg la nga joxoon sa yonante kon kon ñoom ñoo yóbbee lii kon yàlla lii nga ñuy maa duma boo ñëw nar a duma benn yoon ful ko ñaar double ko ñaar nga ñaar leen ko waxataa ñoom nangu na lii mooy yóbbi sa wara kon lii mooy gàllankoor la mu ñaata ñaar bi ko ñettee mooy taqdimul aqli ala naqli mooy bëgg jël sa xel nag jiitewu ci ko ab texte قران اي الاسلام اي تكس موكو موكو تنك خيل تنك بدون خيل كودا امي خيل جا يالا يوني كين كو نيك سا خيل دا دون ساب يوننتي واي خيل يالا موم لاي واخال واي خيل كاسا دا دويوت كون تكس بو خاسي با تاخو سا خيل لم كو نغا تك كو نيلي با توب خيل واي كو جيل في واخ نغا نو ماي مي واي مي سيتا دير يغل ني فيبر لا غال نكور لا بيكو نيتيل مو اتا ولا نينتيل موي التعلق بالشبهات moy tëye ci leunt leunt yi tën tëye ci leunt leunt yi moy mbir yo xamne leerut te ñak leeram sa ma sa xam-xam bu gàtt sa xam-xam bu xóot motax leerut waaye wer nañ la moom it gàllankoor la bi ci gëna fess tay mu bay lol moy sukut lu ulama ay nit yu yàlla baxé biñu ñu jàng jàng nanu biñu ñu xam xam nanu yàlla ñu ñu ngi dund ana seeni xel naaxunu dofunu gis lu jara wax ñu ne cell waxunu mooy noppi borom xam-xam yoo xam ne yii dañu waroon wax ñu ne cell noppi charte yëpp yemm na mawaana yëpp dàqul nga lank bañ a wax seeni noppi mën na yóbbee ku xamut kon lii lu baax la su bonoon diw mee du ci noppi su ma joxe ki joxe misaal ba nekkee Louga di jàng suñu benn njaatige dafa ne man gëwuma ne Euh, mees dafa xaraam gëw ma ne xeesal dafa xaraam tudd yu bëri maa ko tax mu ne man diw mooy sama wasi mooy sama sëriñ ay soxna la soxna la dañu xeesal dañu dañu mees ay doomu jigéen dañu mees dañu kii kon su bonoon du nangu ay soxna ba jabar tax ñu ko kii def gis nga moom la ko yóbbee wàcc yoon mooy kilifam ji mu doyloo ci léppam jox ko boppam di ko déglu dafa da am lu mu gis am keneen daa araam kee soxna mi ngi koy def waxu ci mu jàpp ko ci bonoon lu ci wax moo tax borom xam-xam warta noppi bu charte yëpp yemmee mu waane yëpp dàqu ngal la waay nañu wax bañ a ragal kenn bañ a ragal lenn wax ngir yàlla bil xikma bi ko juróom ñaareel mooy too tooga nit ñoo xam ne mooy yàlla kese mooy seen mbir mooy yàlla gisaan loolu kese mooy seen kii mbir diw ni ma nee njabar bu si tooga nit ñu mel noonu mën tax ba yóbee daal wàcc yoon bi ci mujj mooy al ictimaadu ala nusuus al daifa wal mawdua mooy sukkandiku ci ay textes yoo xam ne kat du ay textes kii nii wér kon daal su ma ko tënkaatee daal mooy nañu gën a góor-góor ci alquraanu karim ak sunna ñu xam ne sunu jàmm ci lay nekk sunu texe ci lay nekk te sunu lépp mi ngi ci amul lenn looy soxla looy ki jéggaani ku sàggan nag ba dem ci bàmmeel des na laaj luy sa téere waaw kon yow ba nga dund yow fa toll woon maa kitaabu ko bi nga dund faale woo ko ba fa àggee na ko tontoo ku sew yonante bi ngay dund sunnaam faale woo ko na ko tontoo yàlla fa dëgg-dëgg ak ki topp jërëjëf xam naa waxtu bi waxtu bi jot na jot na ñoo ngi sant u oustaz bu baax a baax a baax di la gërëm vraiment waxtaan bi liñ ci séntu woon yaakaar naa gis nañ ci sax lu kawe suñu njort kon dañ day jaajëfal rek nga ñaanal ñu liggéey bi ñu tàmbale ak sëñ Ousmane yàlla may ñu si ndam euh, ñu koy sàkku bu baax a baax a baax ñuy nuyu ñuy teewe woon waxtaan bi sunu papa sunu sëriñ sunu lépp wax dëgg neex yàlla ñow toog ak ñun loolu daf ñuy may dañuy may daal xel bu daal di nuyu tamit cheikh bu baax a baax ak ñi teewee waxtaan bi yëpp kon xam naa euh, ñoo ngi jaajëfal ñi ñuy seetaan ak di ñu déglu kon ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah. en gaay lislaam en gaay lislaam na xam ni ndam laa ngi seen kanam.